asalaamaaleykum waa àdduna wëngal képp maa ngi leen di nuyu di leen ziar man la Tafa Fall Bara Couture di leen fàttali benn date bi fi nekk mooy le 13 octobre ànd ak Pape Diouf ak génération consciente fee ca Paris la France salle Bercy donc di leen wax yi ñëpp na ngeen ko waajal te xam ne date boobu du date bu yomb benn date la te nañ fa waajal te dem ko te fekk nekkul loo xamante ni ñu mën di toog di ko cof la Pape Diouf dañuy am ak Sénégal yëpp dem boobee bu moom fekk sama bari wax ci Thiès di profité di bi sama clientèle bi nga xamante ne ñoo nekk ci diaspora bi leen wax ngeen gaaw de seen ay commande te xam ne du a yomb si commande la ñuy diri te loolu du mën a yomb benn date la mooy le 13 di jaar jëf dañ ko xaar benn date la Tafa Fall Baar ci président ADESMA association des maires du Sénégal donc di leen wax ni ci woo téer yëpp képp kuy teer ñu ngi lay woo ci soirée boobu ñu feete par la France ci Bercy ak Pape Diouf dañ ko wax Pape Diouf na nga xaar xam ne bii di yokk Bercy bi a yaakaar naa